L'Assemblée nationale, le pouvoir a 83 députés. L'opposition a 82 députés le verdict des urnes on ne peut pas me dire qu'on a un problème de fichier électoral on a un problème de système électoral parce que les politiciens. et les partis d'opposition sont à l'aise dans ce débat. ils ne veulent pas aller sur l'autre débat. relance mais bon je pense que si on n'allait pas on pas être là en train de parler de de tout ça n'est-ce pas Aliou oui euh, surtout que parrainage Momo est décidé en dernier ressort ñan ñoo euh, le premier filtre et puis après le reste naturellement c'est le conseil constitutionnel qui euh, s'en chargerait certainement moom le dernier mot et c'est là que c'est intéressant le conseil constitutionnel le cas Bassirou Diomaye. le cas, de, justement de Bassirou Diomaye bon je, crois que nous avons mm, échange de partout maître Abdinar que je salue je transmets mon grand bonjour et puis naturellement Serigne Serigne Salut. Serigne pardon. c'est ça dessin. et eh <laughs> eh ben. donc du coup et euh, eh ben euh, ku connaît mi ngi côté euh, en général li y a des échanges politiques en même temps c'est normal parce que ce sont des hommes politiques d'un côté comme de l'autre Il dañuy jàng jo euh, dañuy jaman xaw ma jàngo jongante xaw yooyu ah. dañuy jongante waaw dañuy jongante et eh ben ku nekk bëgg nga jël nguur gi donc ñi ñu war a waxal mooy opinion bi euh, wax ak population yi jëm leen convaincre ku nekk yaa ngi dem xëcc sa bor mais évidemment euh, li am solo mooy fexe ba def suñu kamtalaay kàttan ba conseil constitutionnel. mën a qu'ils disent le droit donc en temps utile mooy jour bi nga xam ne moom la moom la moom la moom la décision. voilà c'est tout il y a seen bët euh, borom d'un côté comme de l'autre pour xol euh, véritablement ndax décision yi conseil constitutionnel n'a rien jël période Bobo sens mais en attendant il faut anticiper sur autre chose sur euh, le projet des uns et des autres qu'est-ce que euh, euh, ils veulent ñi bëgg a nekk candidat euh, am intention yi di ñaan yalla ñu ñu ñu jàll euh, parrainage bi conseil constitutionnel jàll leen ñu lan lañu décider pour réew mi intention bi rek doy na pour ñeu taxaw def ses propositions ba conseil constitutionnel décider lan lañu ñu bëgg ci réew mi c'est vrai que tout le monde parle de qui diou de Bassirou Diomaye du PASTEF des autres candidats mais mais je pense que c'est vrai que war nañ ci mën di wax mais mën ci di ci étaler tout le temps tout le mm. temps parce que quand même euh, on a autre chose à faire. il y a plus important. il y a plus important surtout que dañuy les Sénégalais par rapport à ce que nous avons dit, nous avons xam euh, nee dit, C'est qu'on ne peut pas tout rire ici, mais comme l'idée am solo, des fois j'ai envie de, de, de, de comme dit, la répétition est pédagogique, te deug la dañuy am envie de ci li nga xamné euh, ci képp ko xamné da nga am intention président de la République Sénégal du Sénégal Lolo, euh, Lolo dañ ci alerter parce que dafa concerner euh, l'avenir du Sénégal dafa concerner les ressources de ce pays euh, je parle des des ICS et là je pense à à Maître Abdinar et à certainement Bougane Guédani, de par son donc collaborateur qui qui qui est monsieur monsieur Diatta et puis aussi à hum, Abdou Khofor Touré. pour que ngeen ngeen ngeen xalaat ni ak sénégalais yi ñuy déglu balaa benn mbir bu am solo di ñu échappé parce que tout simplement dañu nar a nekk di di dugg di di di nekk ci ay détails yoo xam ne très peu important parce qu'il y a quand même 18 millions et quelques 32 000 Sénégalais 18 millions 32 000 et quelques Sénégalais ils ont une importance fouf les quelques 200 Sénégalais Ils ont une importance les candidats candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils sont beaucoup moins importants par rapport à ces 18 millions de Sénégalais Ils ont une importance ñu les sacrifier nee Aïcha ñu leen di sacrifier moy amna ño xamné ba Sénégalais dañ ko wara xam ñu bay ci xel mu doon ay sax euh, euh, euh,

en septembre 2024 élection I, janvier 25 janvier 2024 huit mois après ICS c'est un contrat de concession de faillite guerre. ça se termine Et état du Sénégal ne renouveler képp koo xam ne mën nga nekk euh, euh, justement président de la république et je pense que ni buñ ko naree renouvelé waat pour plus d'une vingtaine d'années je crois que ni ça serait dangereux mmh. surtout que ni gis ngeen ICS nu muy lëmbee réew mi Sénégal da ngeen di dem di jëndi yéen sénégalais yi lay waxal da ngeen di dem di jëndi engrais à l'étranger dem ay Ukraine dem fu nekk pour jéem a euh, taf tafe seen tool yi ndaw yi ngeen am ni fii pour jéem a am dara parce que l'engrais, il sert de les, paysans de ce pays-là. Toujours des problèmes. Il tonne d'engrais à 300, 350 000 tonnes de 350 000 francs cfa la tonne. Nous avons un engrais qui est là, 5 000 francs, 2 500 francs, le kilo. 25 000 francs, nous 25 kilos c'est terrible et c'est grave ce qu'on est en train de vivre te li nar te président bi akfumi ak fu mu munti doon leen dina signer Néné Aïcha mm. dina defaat benen concession pour encore plus d'une vingtaine d'années pour les euh, ICS yi nga en ne nyoko tenir avec la complicité de Alassane Diallo ah, et c'est grave parce que boo leen ko defee wallahi man muna dem benen dëkk liggéey wa sen affaire la boo leen ko defé moy yàqu ngène fexe leen ba kenn bañati renouveler le contrat de concession bu ICS e bi nga xamné day jeex le euh, au mois de septembre entre le 15 ak le 30 septembre 2024 donc ça serait grave ki nga xamné moy ñew parce que bu ñewé bu xasse ba nek président c'est fini il fait ce qu'il veut donc imposer leen lolu ba ñu bañ euh, signer euh, resi euh, signer waatal leen beneen contrat bo xamné dina durer 20 ans indiens yi vont contrôler nos phosphates phosphates dem leen ngeen xol nak lan la mëna def yépp ci réew mi phosphate bi ñun buñ ko téyee dootu leen soxla ci engrais ci aduna bi dootu leen non seulement doo leen soxla ci engrais waye yeen ci seen bop ya leen di jël engrais bop da ngeen dañuy am ba mu doy ba di jaay bi ci réew waaw légui mm-hmm. xana loolu neexul am na ñoo xam ne nag nee nañu dañuy bëgg renouveler waat contrat wu ICS bi parce que dañ ci am ay commission parce que parce que indien yi ñoo leen contrôler on est dans un pays où un ministre de la République qui s'appelle Omar Sarr nekk ministre des mines bu jëlee kayit euh, joxe ordre ay directives une société de minière du du ICS directeur bi daf ko naan la voilà le pays dans lequel nous sommes ñun ñi ngi reyante ci suñu biir machin euh, yooyu noonu de euh, ay Sonko yu lu leen neex de yëpp amul solo parce que ñoñu dañuy jall Abdou Diouf na fi ñom Omar euh, ki Mamadou c'est fini yéen yaa fi des te ñun dañuy dé ñeneen dañuy ñëw donc dëkk bi dañ ko wara sauver ñi dund wara a dund ñëw dund. d'accord mag dund wara am dund en dignité parce que seen ressources minières yi. Mm. yalla mo leen ko may et ce ne sont pas des ressources qui sont faites pour les Indiens wala pour d'autres étrangers. Mm. il faut que ñu protéger ko tey ngir yalla war a suul yi. fexe leen ba sénégalais yi ICS bi gars bañ ko signé ak les autres. Euh, société minière yi nekk ci rew wa ICS bi ñu lañu soxla engrais parce que dañu bëgg am souveraineté alimentaire yu bari dañ ko wara défat ci rew mi am nañu ndox am nañu courant suñu engrais nee na Aïcha man kay yuxu nak bu kenn ne kenn musu wax alors euh, chaque vendredi nga wax ko donc. je pense que euh, nee na Aïcha juste me bëggoon rebondir ci le mot par rapport ICS bi tuuti rek. mais en 30 secondes alors en 30 secondes. foog ñu dem de l'autre côté. loolu day di musiba parce que boo xoolee dernier critère jeune jeune Afrique bi passé au mois de juin 2023 bi. Mhm sur les 500 entreprises les plus prospères en Afrique nous cinq 5 ci am ci cinq 5 ISS ISS premier c'est Orange Orange est classé 68e deuxième Sénélec qui est classé 140e troisième Total qui est classé 208e quatrième ICS bi classé 233e donc le dernier mooy Asegna donc ñun cinq yooyu la ñoom suñu champion sax nekkuñu donc ay wax dëgg yàlla nañu ñu delloo suñu ICS au moins ñu am suñu ay champion ci par rapport à loolu laa bëggoon dëggal Aliou Sow Aliou Sow ci côté bi ngay wax d'accord naa ci alors euh, peut-être Aliou Sow candidat de continuité bi ngay ngay ngay waxal foofu parce que je pense que je pense que je pense que yeneen candidat yi rupture la ñu woote euh, euh, allant dans ce sens et je pense qu'ils ont soutenu et je fais des émissions par mercredi soo soo soo déggee yenn candidat yi wax quand même que contrat boo xamante ne arrangé wul les Sénégalais arrangé wul Sénégal peut-être euh, duñ duñ duñ ko signé wala dañ ko revoir. mooy su foofu candidat de continuité bi ngay sandi ay xeer. non du ñoom kese sax ñëpp la xam nga lu tax parce que sinon dañu naan la sacrifier réew mi. te mm. képp koo xam ne war na ko def sénégalais bu boobaa bu ñu jógee. Mm-hmm. def une marche ci Sénégal. c'est clair daaneel nguur googu sax. wallahi dina ko jar parce que nguur googu dafa nar a sacrifier réew mi donc à la base anticiper sur ça mm-hmm. fexe leen ba kenn du joxe ICS ñu récupérer ko ci Indien yi état du Sénégal contrôler ko pendant un certain moment après ñu distribuer action yi aux Sénégalais ñi nga xam ne ñu ngi fi comme ça ñu koy contrôler di ko jaayal seen bopp Sénégal jëm kanam nee na dañuy soxla souveraineté alimentaire dañuy soxla engrais engrais boobu ñun mën nañ ko defal suñu bopp ba jaay ba mu doy ba jaay li si waa léegi ñu ne ñoom dañ koy ay ay indien taxaw ni ñoom loolu la ñuy contrôler ba nga xam ne suñu ministre yi sax même président mënuloo dara indien yi parce que yow Macky Sall boo mënuloo dara indien yi indien yi li ñuy def ni duñu ko def leen jox Omar Sarr du bind ay courrier yónnee leen ko ñoom ñu ne faale leen loolu moo fi am Et c'est scandaleux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, Ouais, ce qui se passe, c'est extrêmement grave mm. avec la complicité d'un monsieur qui est à la retraite depuis plus de 10 ans. qui 20 millions de francs par mois. Merci à lui. cadres ils sont complices avec ces Indiens-là. C'est un dossier. C'est un dossier. Pardonnez-moi, Abdinar. Moi, si vous êtes président de la République et vous me faites ça, moi, moi je veux bien. Ces gens-là, ils nous fatiguent. ils vont nous fatiguer. <laughs> li ngeen war a wax waxu leen ko ba tey li ngeen war a def defu leen ko lii nga xool ki wax waxu orange ce qui se passe à orange.